Nous avons niveau yu mu ci yenn gox yi de s'en parents yi ñak xaliss tax na continuer donc nous lepp ay impact négatif la aussi un impact positif. dafa positif amna impact yo euh, dafa permettre numérique bi nga dafa utiliser ay ressources, etc. Nous ñu ko ko ci mi ba nga dina mëna continuité bu ministère ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle de l'Apprentissage et de l'Insertion une tekna plateforme de formation à distance bu permet d'utiliser pour permettre euh, approche pédagogique yi ñu utiliser yépp ñu plateforme continuer enseignement apprentissage.